waaw gars yi maa ngi leen di ziar di leen bu baax man la Adamo Boss Dey Negri man la vidéo bi nag lan moo ko waral dama koo def pour wax ak 10 problème 10 000 problème yow laay waxal man jotewu maag woyow dara yaa ngi dégg damay expliquer gars yi histoire bi ni mu demee ndax ñu xam ko yaa ngi dégg man sama fans yi ñoo ma woo ne ma comme que yow da ngay def direct di saaga jëlal 10 000 problème ndax 10 000 problème dafa sadik comme yow ci laa la woowee téléphone yaa ngi dégg nga ne ma dinaa la paas sama ménagère ma ne la waaw yaa ngi dégg léegi nag yow nga xaar nga woowaat ma boole mag euh, milo du sa ménagère sax milo mooy kii ngeen di gis si photo bi boole mag kii ba ngeen may woo yéen ma wooyee ci douze ndax fi ni dayee maa ngi jàkkaarloo moom di ko gis loolu du woon néeg du appartement douze douze dayukaay ngeen ma doon woowee appel vidéo nga jox ma milo milo di ma teg dil naan ma ñun direct deux cent mille lañ koy defee yaa ngi dégg ma ne leen ah amul problème deux cent mille baax na dinaa ci waxtaan ak gars yi wala xanaa da ngeen yaakaar nit ñi danoo dof bu ngeen di triyaa da ngeen di triyaa ngaaka man duma ngaaka man la aaduma boos day néegri maa leen gën a sadik man kenn mënut a day sama xel mii man duma dof ba ngeen ma waxee loolu dama leen a bàyyi ci biir man duma ngaaka yow nan la may nit ñu bari di suivre di ma seetaan ma ëpp la bës yaa ngi dégg ma ëpp la bës yow di fay deux cent mille pour nga ñëw sama direct bës taxul woon ma de déedéet sama gars yi ñoo bëggoon deret bi loolu moo tax ma woola la du bës man damaa judduwaaleeg bës yaa ngi dégg sànq da nga doon def direct ak bouse ma dugg si biir direct bi man maa ci dugg saaga sa ndey ne la trianga boo dee jaay affaire ngaaka da nga koy affaire nante da nga koy jaar ñeneen man duma man du ma ngaaka ñu iskrin loolu yónnee la ko yónnee ko sa ménagère sa ménagère original bi moo ma woo ne ma na nga assumer say responsabilité yaa saaga loolu ma ne ko waaw ménagère u 10 000 problème moo ma woo yaa saaga saaga bi ma ne ko waaw maa ko saaga mu ne ma na nga assumer man maay boss des négri man du ma ragal ku ma xam-xam ne Adama du ragal assumer moo tax may def vidéo bi di assumer seen dëjëw nday man du ma tapet du ma tapet démin man la Adama man ragaluma mindeef man la Adama benn affaire nag dinaa leen ko waxal muy lan muy gis nga démin fekkente ne dangay xaalis da koy wut si ñeneen man du ma ngaaka yow démin problème yow. yow yow lan nga fi def yow amoo bës rang nga fi génnee rang waa Sénégal di la may bës rang rang rek nga fi génnee ñu lay may bës si rang rang jooju nag laay jël rancéra si sa dëjëw nday rang jooju noonu moom laay jël rancéra si sa lëfal nday man maa la gën a sadik foofu gis naa la ngay ay vidéo naan Ouzin Keita dama koy duma Pawlish dama koy duma yow kan nga mën a duma yow kan nga mën a duma yow da ngaa mën nit yow man ak yow a yem di yow ma doon nit man maa la tane ndax man sama yax dëgër na waaye yow sa yax yu fanax yii yow bu ma kattee sa nday mbéj léegi nga egg siin te corona ba su ma doxaanee sa nday mbéj nga egg siin léegi te doo paas yow moto nit rek leen ménagère bi nag man faale wu ma la man assumé moo tax may def vidéo bii yéen du ngeen dara ñu leen ak gën a doon maqaama ay Wally Seck ay ñoom jaw këcob ñoom duudu sama gars yi sama doomu nday dañuy def direct te duñ fayeeku dara yaa ngi dégg ku leen soxla ñu ñëw disponible mosu ñoo fayeeku dërëm yow nga génnee fi rang waa Sénégal may la boos ngay dox dawlu bul day sama xal mi man maa la gën a dee fuuf boos day néegri mooy wax waaw kay